dal leen ak jàmm conseil supérieur de la magistrature ak coppite yu bees ya ca tukkee naka moom la lii quotidien xëyee ak ñun xanaa daa am lu bees lu bees li kay mooy critique yu bëri lalu naka ci palum bu bees boobee yéenekaay bi ne ñoo ngay njort ne boobu le naka jege ñaale la wala sax mbokk Adji Sarr te xam ngeen ne diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko dara leeragut ci ndax dossier ba léegi nag moo ngi ci tiroir yi di nelaw ñu bëri naka ña doon palum-pal gi bu ñu ko gaaw régler ndax munta indi ay jafe-jafe ndax jafe-jafe du am ci affectation juge Souleymane Teliko ca Tambacounda le mandat ne l'exil la dëna la ko duppee maanaam rek gis na ne moom Souleymane Teliko affectation boobee ab sanction la di rëq sa ndigg laay gën a nirool ndax taalibe la boo xamante du jëfee ndigal waaye nag na fekk mu doon ab ndigal bu baax de yéene kaay moo tax si jamono ji naka ñu ne ko us ca Tambacounda ñu waa des médias ne kaay leen ma fàttali ne dossier yooyu maanaam diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak mbiruma Ndiaga Diouf nee na ay pataas yu dàng jër naka moo ngi noonu député ya toppee naka wàllum trafic passeport diplomatique mbirum Bougazeli ak faux billets yi ak itam li lëmbe réew mi ci jamono ji di coow la violu Messi ci la tribune yéen kaay ne xam ne naka xaw kan waaye naka ñi ñu fal yees nag am na lu doy sëkk la ñu war a sëgg ba jéem see leeral askan wi ñu jógee justice naka te ne pàccaxa ci wàllum politique naka moo gën a lëj ñëpp ci jamono ji enquête lijjanti ak xeexa ngir rek a doon maire bu ndakaaru yéenekaay bi ne ñoo ngi seetaan naka waaye Doudou Wade mi mun naa bett ñu bari un Wade en embuscade la ko duppee moom Doudou Wade daa bëgg a wane dooleem ci diggante Barthélemy Diaz ak Abdoulaye Diouf Sarr dina yomb ndax seenu pa nijaay di maître Abdoulaye Wade dina dikk ci réew mi ngir jàppal tànk jarbaatam boobee di Doudou Wade ci biir yéenekaay bi ne li am solo mooy nga rawee sa naataango benn baat képp rek ndëgg si rax l'observateur ni waaw waaw ndax lu toll onze recours naka la déposé ca cour mu jaarale ko ci agence judiciaire de l'état kaawu ak cinq dossiers de coalition de parti naka bu opposition bi boo moyu naka daanu leen neenal bugaan géey dani njiital gëm sa bopp ci source la tax nag mu déposé ca cour bu Saint-Louis naka wàllum délai rek la amoon ak jafe-jafe ak li nga xamante ni moo déposé wàllum liste yi Walf Quotidien élection locale yi naka moo nar nekk jiw bi nga xamante ni moo nar a jur coow lu bari li nar a am si lu ndaw rek mën na ñëw rek gàllu góosal lépp lépp nañuy defee jigéen ñi ci ay métital ci fukki fan ak juróom benn lañu ko bëgg a changé le quotidien ne téeméer boo jël naka juróom fukki yàgg juróom nag ci wàllu métitalu jigéen ñoo ngi koy amal ci biir Sénégal nañu bàyyi di métital jigéen yi waay fukki fan ak juróom benn naka la ñu war a amal rek ngir fexe ba changé dundit bi nga xamante ni jigéen ñi ñoo ngi koy dund ci réewum Sénégal libération di ñu nettali doxalinu benn mafia pièces détachées naka dañu doon sàcc oto ba noppi yóbbu ko ca Sinda tas ko tasaat ko jaay ko pièces détachées yéene kaay bi ne mafia ba naka tas na tasar ndax jàpp nañu leen juróom ñetti arrestation ci diggante Sinda Dakar Okongo Clément Antony ñu gën koo xam ci Tony nag jaaykatu pièces détachées bu mag ca défoncé moom moo nekkoon kàngamu boobu mafia ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg